jamono ju nekk ci at mi rek ak saison bu mu manti doon yoonu Médina yi dafay fees dell ak ay ndox yu bon nekkin wi nag gën a metti lool ci jamonoy nawet yi ñu nekk ak ay yoon yoo xam ne dafa yàqu ba sonal askan wi ndoxu douche yi ndoxu rigol yi dafay génn di jaxasoo ak ak ak ndoxu taw bi balaa loolu sax ndoxu boucher yi assainissement bi baaxul sëñ bi nañ dimbali chaque semaine ñu ñëw gas tali bi waaw ñetti at def naa ne xanaa mat na ko yaa xanaa ah nee dañ ñuy defaraat euh, kii euh, tiwo yi lañ wax lañ doon euh, dindi tiwo yu màggat yi def def yu bees mais daal liggéey baa ngi bëgg a yàgg vraiment. ay liggéey yu yembul benn yoon ay xeer yu tasaaroo fu nekk ay pax yu taandox ñoo rek nekk décor yi la yoon dal di waral ba chauffeur yi di yuuxu ndax seen oto yi ñuy defaraat saa su nekk. bañ a yàq day yàq oto yi kay organique man man rek soo ba soo ba léegi maay taxaw maay soog a départ nii parce que sa oto bi dafa yàq lu bari 20 000 francs laa dépanne léegi nii wër na Serigne Touba ndax pax yi nii ak affaire yi yëpp mais nan ko defaral quoi fii du yoon quoi télé bi xam nga biir town bi nii nii tali yi nga xam ne dañ koo teggee ci yoonu Médina yi waxal na tamit ba chauffeur yi dal di yokk seen ay paas waaye tamit jaaykat yi di ñaxtu ñàkkum client mi ndax yoon yu bon léegi xoolal rue 22 bi ni la li ko tàmbalee rue 45 ba RTS lépp nii la mel dañ ko gas bàyyi ko noonu mënoo jël taxi bu ñëw fi wala boo jëlee taxi dalay dalay taxé lu cher pour ñëw te mënoo xam lan la boo waxee ñu la maire yi du du compétence su maire yi pour Ageroute la wala ñu la pour état la. su fekkee rek ne defaraat yi la yoon nekkul benn yoon wareefu maire bi ñi nga xam ni ñoo dëkkee fii ci Médina ñoo ngi sàkku ci état bu Sénégal mu defaraat seen yi ci ni mu gën a gaawee.